yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi auzu billaahi mina wa barakaatu mbokki MK TV ñu ngi leen nuyu baax baax te di leen ziyaar jotaay bi nga xam ne baaxoo nañ koo def mu Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ma ngi koy def ci ndogu yu am solo yi waaye su ndogoo ba noppi ay kilifa yoo xam ne dañuy ñëw bokk ak wa daayira bi ndogu waaye suñ noppee ànd ak ñoom ci liggéey bi tey ñu jàkkaarloog soxna Maa Isa Mbàkke yaakaar naa nekkut koo xam ne dañ koy présenté ab taxawaayam ci dëkk bi waaye liggéey boo xam ne ma ngi koy liggéeyee maamam tasaare ko ci mboolem adduna bépp mu seet si woon tey waa daayira Muxaddamatul Xidma ginnaaw bu nu dogoo ba noppi moom it mu am liggéey bu rëy bu am solo boo xam daf koy def ci weer wi di dalal ay kilifa di leen ndogul waaye yaakaar naa liñ ko gën a xamee mooy soxna maam sa Mbàkke ahlu café mboolem xew-xew yi nga xam day xew ci yoonu murit wala sax xew-xew yi diine yi dafay ànd ak mbooloom di fa liggéeyal maam liggéey bu am solo mu ñëwoon tey nag seet si waa daayira Muxaddamatul Xidma soxna si xam naa ginnaaw buñ la nuyoo. ziyaar la ci liggéey bu rëy bi nga xam ne yaa koy defal yoon eh, yaakaar naa ñëw nga fii ci jumaa ji gis liggéey bu rëy bii nga xam ne ña ngi koy def diggante waa ahlu café ak Moukhaddamatoul Khidma seen relation relation bu yàgg la boo xam ne eh, mbokk yi ñuy seetaan xam nañ ci lu bëri bëri. bismillah mina shaytaan rajim bismillah inna waliyallah ma tawfiqi illa billah kon ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne ñu sunu yaakaar tey dellu di yeesalaat suñu njëbb ci sëriñ Massamba am suñu bunt ci sëriñ Touba di am mbégte bu baax ci jotaay bi ñu toog fii tey ñu jotaayub jaamu yàlla jotaayub dundal sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk weer wu màgg tedd suur Ramadan weeru koor ah tey nag yàlla dogal ñu teew fii ci béréb bi sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba tëdd muy béréb bi nga xam moo gën a màgg ci Touba al Mahrousa ñun dogoo fi mu doon bis bi ma gën a neex ci weeru koor gi ndax man ni nga ko waxee léegi rek weer diiru weeru koor yëpp ci kër Sëñ Tuubaa gi dama fiy def ay ndogu ànd ko Hizbut Tarqiyyah yi ci ndigalu Sëñ Muntaxa fa laay ndogu waaye bis bi benn bis bi ngeen ma tànnal ma di ko ndogoo fii ci jumaa ji moom ma dàqal ci ndog yëpp ndax ndogu fi nga xam leer na Sëñ Tuubaa nga tëdd jàkkaarloog yow loolu mbégte la àjjana kon bis bi yemalewu ma ko benn bis maa ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm mboolem bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma ñëpp góor ak jigéen mag a ndaw di am mbég si bu baax xam ni maa ngi seen ginnaaw rek tàllal naa leen loxo ndax man comme ni ma leen ko waxee woon rek yéen laay roy ndax ndogu yi yéen a ko yéen a ko roy màkk di ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko defal Serigne Touba ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu am rek Serigne Touba am na ko ñu nit ñu wëlbati ko waat di leen royaat ndax yoon bi moom ma leen ko waxee romb roy mo fi ne ak romb soo gisee lu baaxut nga romb soo gisee lu baax nga roy ko man nag roy naa leen ci ba topp ci seen ginnaaw rek lu ngeen def ci lu baax rek ci mbirum ndog mi neexu leen roy nag waaye maa ngi seen ginnaaw rek ndax fii ku fi teew tey xam nga ne ndimbal sëñ Tuubaa bokk na ci ndax soo fi ngay doge lépp ay qualité nga fi ci yar bi ci organisation bi ci tey gi ci teggin yi ak ni ngeen di dalale kat ni loolu lépp jàngat ñun ñi leen tere bi ñu fi dikkee ñu ngi ñu ngi tàmbalee jàngale ci ñuy jël kaas yi ñuy jël palaat yi ñuy jël sax musuwaar acide bi ci ñuy jël doggi mbur yi ni ngeen leen organiser ñuy bale ñi lal nappi ni ngeen leen organiser loolu lépp saa buñ fi ñëw am njàngat lay doon ñu koy roy ci loo jàngut doo ko man te loo doonut ab taalibe doo doonut sëriñ mukk kon nag ñoo ngi roy ci yéen lépp rek di ñaan li ngeen am lépp nag ñoo ngi ñaan Sëriñ Tuubaa mu may ñu ko ñu leen ci roy topp ci seen ginnaaw rek sant bu baax di gërëm bu baax baax di gërëm sama mbokk bu soobee mbokk mbàkke mbàkke yi fi nekk xam ne yow gis nga leen fi ñu beru daanaka xéewal yu ci bari fii lañ ko indi fii érasme bi nekk kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di am mbégte bu baax xam ne Sëñ Tuubaa kontaan na Sëñ Tuubaa bég na ku fi ñëw rek sa xol sedd na am nañ ci yëg-yëg bu baax a baax bis bi yemale wu ma ko benn bég naa lool sama mbégte mi ma ngi ciy fasale jullit yëpp murit yëpp yàlla faj seen aaji yàlla ma ñu nag fan wu gudd lool lool ba li ñu yéene ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ndax ñu eggale ko ndax dañuy yéene rek di mel waaye defaguñ ci dara kon ñoo ngi yàlla ñaan yàlla wér ak gudd fan ak kàttan yokkuñu ba li ñuy yéene suñu borom eggal ñu fekk kenn bañ wopp kenn bañ mag yéen tamit kenn mënu leen a fay gis na ni ngeen bàyyee seen kër diir weeru ko kenn du jaar sa kër ba ay minuit ngeen fiy joge loolu lépp jox liggéey bi ak xam la ak bëgg Serigne Touba rek ma leen jàpp kon ñoo ngi leen di ñaan bu baax gudd fan ak wér gu yaram ñaan yàlla eggale seen yéene ngeen fekk lépp dund ba seen njaboot yi ndaw yi yëpp aw leen barke Serigne Touba jërëjëf wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatulahi taala yàlla nañu fekkee wax déwéen ak jàmm jërëjëf dégg ngeen kàddu yi nga xam ne soxna maa Isa Mbacke ahlu kafe moo ko doon yëkkati moom nag yaakaar naa suñ ko gisee ci barab bi dun ne ndax li mooy liggéeyal maamam euh, fépp foo xam ne jullit yi ña nga fa mu fekk leen fa ki xéewal mu ñëwoon tey fii ci daayira Muqaddimatul Xidma kon soxna si ña sant ci ndigalul sëriñ Afiya mi nga xam ne mooy kilifa ak mboolem membre boo xam ne yaa ngi ci biir daayira Muqaddimatul Xidma sa taxawaay euh, liggéey bu rëy bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal yoon wi kon sëriñ Afiya ma ngi lay sant ak mboolem membre yëpp kon mbokk lii ci lenn la ci jotaay yi nga xam ne dañ koy def suñu dogoo ba noppi di dalal ay kilifa yoo xam ne dañuy yëngatu ci àdduna waaye di yëngatu ci diine tey ñu jàkkaarloo woon ak soxna Maam Isa Mbàkke yaakaar naa duñ leen ko présenté ab liggéeyam euh, bu rëy ci yoon wi waaye ci lislaam kon waa daayira bi ñu ngi leen sant baax di la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi